jere ngeen jëfee ci seetaan bi top bi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñi di kërug fajri tay ji naka ñu daal di yewoo bànneexa xaliko waral du len rek lu dul ay xar yi moo jub ci diggante ki nga xamanteni ni mooy Moustapha Diop ak Khady Sylla moom Moustapha Diop nak ñu fàttali nak moom mooy rédacteur en chef bu télévision ba tax na rek ca seen biir daanaka rek foofa la jëlee li nga xamanteni mooy ci noonu nak ñu nemmeeku ne. ñii di journaliste yi bu ñu nemmeekoo ñu ca baree bari dañuy euh, sëy ca seen biir ndax bu yàggul rek daanaka rek la ñu dégg euh, sëyub ki nga xamante ni mooy Cheikh Yirim Seck ak ki nga xamante ni mooy Astou Dione euh, ci noonu nag ñu daal di nemmeeku ne ñi nga xamante ni ñooy journaliste yi ñu ca bari rek dañuy bëggante sa seen biir ma leen di <laughs> wax rek ne leen noonu la kenn ki rek ñi ku ci nekk rek fa ngay liggéey fa ngay gisante ba daal fay mën bëggante ba tax na ñu ngi leen di uh, ñaanal bu baax a baax sëy bu barkeel uh, njaboot gu barkeel daal di ci uh, topp ñun waa rédaction HD 221 TV jërë ngeen jëf.